mbokk xarit yi yéen a ñeel cant ak gërëm ñu ànd ak yéen ci seen télévision Mourabitoun ñu fas ñëw yéen ci seen xibaar di ko tàmbaleeg boppi xibaar yi. jëwriñ ji ñu dénk wàllub diine ji ak njàngale bu njëkk mi di xamle ci bés bi ñu jagleel xeex alphabétisation ci réew arab yi ne nag réew Mauritanie dafay wéyale di dafay wéyale saa su ne di amal ay jéego ngir xeex alphabétisation ba mu jeex ci réew mi. njiitum parti IPR di parti nguur gi di dëggal ne nag nguur gi amul xel ñaar ah, ci liberté de presse bi mu joxe ci réew mi ba tax na doon ah, yoon wu ñu jël nga xamante ne nag amul dellu ginnaaw. commission populaire mauritanienne ah, bi dooleel li yoon ci réew mi di fàttali tukki sa Saddam Hussein di njiitum réew mi nekkoon ca Irak kuréel gi di xam ne nag bi mooy juróom-ñeenteel yoon ci fàttaliku bi mbokki xarit di dale nag jàmm ci seeni i xibaar euh, jëwriñ ji ñu dénk wàllub euh, diine ji ak njàngale mu njëkk mi ci réew mi di xamle ne nag réewum euh, Mauritanie dafay saasu ne dafay amal ay jéego ngir xeex li ñuy wax alphabétisation ci réew mi loolu nag Ould Daoud doon ko ci discours bi mu amaloon ci bés bi ñu jagleel xeex alphabétisation ci réew yi arab yi ba tax na leeral na jéego yi nga xamante ne réewu Mauritanie jot na ko amal ci xeex loolu loolu di alphabétisation bokk na ci euh, sos ay daara euh, moderne ak ubbi ay classe yi nga xamante nag dinañ ci mën a jàng ñi nga xamante nag ñooy dinañ ci mën a jàngal ñi nga xamante ni ñooy dund ci alphabétisation ci wàllub politique ak kàdduy euh, njiitum parti IPR di parti ko nguur gi euh, di euh, dëggal nee nag nguur gi amul xel ñaar ci liberté de presse bi mu joxee fii ci réew mi ba tax na moom Sidi Ould Maham di xamle ne nag li di di li ñu sos di liberté de presse fii ci réew mi maanaam kërug taskati xibaar yi moom seen bopp yi ñu sos ci réew mi kon na nguur gi di du du dellu gannaaw benn yoon ci loolu nga xamante nag moo di liberté de presse bi mu joxee ci réew mi ba tax na la nga xamante nag moo di wàllub liberté de presse amal nañ ko ci réew mi ci ay at euh, ba tax na njiitum réew mi amal na fi ab manda bu njëkk ba jeexal ko euh, te taxaw lu ñu benn kërug taskatu xibaar te itam euh, tëjuñu benn taskatu xibaar ci réew mi ci loolu nag ullu ma xam doon xam xamle mbir mi ci reer bu mu seqoon nag ñii di tas taskatu xibaar yi nekk ci réew mi ba tax na li mu xam xamle moo di daal ne lii di liberté de presse buñ ko amalee ci anam bi ko anam bi ñu ko bëggee fi ci réew mi du am benn euh, jafe-jafe ba tax na Ulmaham di xam ne ba tey euh, ci bés bi nee nag li nga xam xamante nag moo di këru ga euh, taskati xibaar yi kon war nañu mën a rek am yokkute ci réew mi fii ak ñu ngi tënku rek ci li nga xamante nag moom lañ leen tracel ci réew mi ñu bañ rek laal lépp lu nga xamante nag bokkul ci seeni wareef unité takk der yi euh, xeex li ñu wax terrorisme ci réew mi di jeexal wër bi nga xamante nag moom la ñu wóoroon euh, kër yi yenn kër yi nekk ci an Palha nekk fii ci région Nouakchott euh, du Nord ginnaaw bi ñu doon wut ab salafiste bi di Cheikh Ould Salek ñu bi ñu yaakaar ne foofu la làqu woon ci kër yooyu ñu fàttali rek ne Cheikh Ould Salek mi ngi làq mi ngi rëccee ci prison bi bi mu rëccee ci prison bi tollu na ci ab semaine semaine euh, ci loolu nag euh, yenn ci source euh, ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu kaange ci réew mi wax nañ ni ne nag kon wër boobu takk der yi waroon ci quartier le mi ngi jeex rek ginnaaw bi ñu tegee loxo ab ndaw si nga xam ne moom la ñu fekkoon moom la ñu fekk foofu ci kër yooyu le ba tax na ba tey gisaguñu ki nga xamante ne nag moo di Cheikh Ould Salak bi nga xamante ne koon kon dañ ko àttee ci réew mi àtteeg tëj giruk dundam ci atum 2011 ba tey ñu fàttali ko rek ne Cheikh ul Salak mi ngi rëccu ci la 31 ci weer wi euh, ñu euh, jeexal njeexalituk session parlementaire bu njëkk ci atum 2016 euh, ci loolu nag mu mel na ñu ko jeexalee rek ci dëppo yi nga xamante ne nag ndawik Assemblée nationale euh, dëppoo nañ ko ci yenn ay projet de loi yi nga xamante ne nag nguur gi euh, jébbal nañ leen ko ngir ñu tam ngir ñu càmbar ko bokk na ci nag ci li nga xamante ne nag moo di session bi daal dinañ ci càmbaraale itam lii di budget atum 2016 ci loolu itam kii di njiitum jëwriñ ji jot na ci rek leeral li nga xam ne moo di politique généraluk euh, nguur gi bi mu war a amal ci atum 2016 euh, commission populaire mauritanienne bi dooleel li yoon ci réew mi ah, di fàttaliku ah, juróom-ñeenteelu ko yoonuk kii di Saddam Hussein ah, di nekkoon njiitum di Irak mu mel ni rek ñu ngi ko amaloon ci teewaay ay téeméeri doomu aadama yu bokk ci kuréel google ci loolu nag commission bi di xamle ba tey nee nag mbir mi kon tàmbali nañ ko di ko fàttali ba tax na kon saa ne dañu koy fàttali ko at mu jot ba tax na saa su ne itam ah, dañu koy sàmm li nga xamante ne nag moo di fàttaliku gi ba tax na at mu jot ñu mën ko ah, di fàttaliku. kuréelu ko taskatu xibaar yi jigéen ñi nekk fii ci biir réew Mauritanie di amal ab lël gu rëy euh, ci Nouakchott ngir rek leeral li nga xamante nag moo di taxawaayu ko euh, tagg yonante bi wante li mu mën a wesaare ci diine ji euh, wante ci wante itam ki nga xamante moo di taskatu xibaar gi ni mu mën a rek jàkkaarloog ki nga xamante nag mu ni mu mën a jëflante ki nga xamante nag kon mooy ŋàññi ki nga xamante nag moo di sang bi ci loolu nag ñi nga xamante nag kon ci loolu nag lël bi ñu amaloon ko euh, ci teewaayu ay taskati xibaar yu bëre wante ci ñu euh, ñi nga xamante ne nag ñoo fa toogaloon ay fondation wante ay syndicat euh, ay syndicat wu taskati xibaar ci réew mi wante itam ñi nga xam ne yëngu ci wàllu askan ci biir réew Mauritanie tàkk-tàkk bi tàmbali fi nga xamante ne nag kon moo di magasin bi ñuy denc rakkal fii ci euh, fii ci mu xataa tafasena ba tey ma ngay jolli ña dëkkee ca boor le ña ngay te ne nag saxaar wi sonal na leen wante da leen di jural ay jàmba ay euh, da leen di jural ay euh, jàngoro ba tax na nag mbir mi yegg na ba fi nga xamante ne nag moo di assemblée national ba tey ñi nga xamante ne ñoo di député yi kon jot nañu ko càmbar wante ba tey mu mel ni kon amaguñu safara ci ni ñu ñu mel mbokk yi fii la ñu yem ak ci seeni i xibaar duñu def lu dul dellu seeg yéen ci boppi xibaar yi jëwriñ ji ñu dénk wàllub diine ji ak njàngale ci réew mi di xamle ci bés bi ñu jagleel xeex alphabétisation ci réew yi arab yi nee na réew Mauritanie dafay woyale di xeex li nga xamante ne moo di alphabétisation ba mu jugee fi njiitum parti IPR di parti nguur gi di dëggal ne nag nguurug Mauritanie amul xel ñaar ci liberté de presse bi mu joxee ci réew mi ba tax na doon na yoonu nga xamante ni nag jël nañ ko te amul dellu ginnaaw. commission populaire mauritanienne bi dooleel li yoon ci réew mi di fàttaliku bësug bësug làqu Saddam Hussein di njiitum réew ma nekkoon ca Irak kuréel gi di xam xamle ne nag bi mooy juróom ñeenteelu yoon ci fàttaliku bi. mbokk yi fii la ñu yem ci seen i xibaar du ñu def lu dul di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah di rafetlu ànd bi ak kóolute bi ak télévision Al Mourabitoun di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu